jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare ànd ceeg association ànd taxaw ñu wérati kenn ku ne xam sama diggante ak Pape Niang saa bu ngeen nu gisee rek ci liggéeyu yàlla bi la nu nekk di sant yàlla ci ni ngeen nuy bàyyi xel di nu ñaanal di nu encouragé waaye di nuyu sumu rakk nit ku baax euh, di Mouhamed Amar di ñaan yàlla taxaw la te yàlla jàppale la mais di nuy ki nga xam ne mooy Fallou Niang nekk par Napoli di suma rakk moom tam di nuyu Feeram Tafa ak Coro ak képp koo xam ne yaa ngi ci téléphone bu ay nit ñu baax tey nag ñu ngi fii ci golf golf sidd bi li ñu fi indi muy kaabu day doy waar kaa boo xam ne xam naa ne bari na kaa yu ñuy tourné waaye bii tey da cee bokk ci lu spécial ndax euh, xale bu ndaw bu am 24 ans bu am triplé ñetti doom moo génn àdduna ci anam boo xam ne métti na bàyyi ñetti doom yi nga xam ne tey jii euh, ñi ngi léegi lañ jéego ñoom hôpital euh, muy lu métti loo xam ne nag waaye sunu borom la ndaw si xale la mat wi jàpp na ko ñu yóbbu ko Abass Ndao xale juddu macha allah waaye seen yaay fekkewul seen yaay xam ne nag ni xale judd nañ mais laataa seen yaay di ximmi booy xam lu bari ci xale yi suñu borom jël na muy lu métti loo xam ne ñu ngi koy dund boobaak léegi euh, euh, ak dimanche la génn àdduna paab damay xaar mu ñëw ci kaa bi xam naa ne parce que tey waxuloo sax dana gën a xaw a jafe mais Pape maa ngi lay nuyu di la ma saw

ni ma ñun day sëñ dañoo am fii sunu benn mbokk boo xam ne dafa am ñetti doom wax dëgg yàlla daanaka mu ngi amoon doom alxamis bi passé waaye ba léegi jafe-jafe yu tar te metti moom lañ doon jànkonteel ci hôpital bi ba tax fi mu toll nii xale yi sax amuñu luñ leen fayal pour ñu génn te fi mu toll nii fukki junneeg juróom rekk moo leen fi téye waaye sëñ li ci gën a metti mooy li ci gën a metti mooy xale yi seen wéyjur bu jigéen di xale nekkoon koo xamante ni dund na ay souffrance yu metti ndax bii yoon mooy ñetti yoon muy am ay seex seexam yu njëkk ñaar la ñaari seex yi ci topp ñetti seex topp ci waaye bi ci ñetti seex yi toppee nag sunu borom may na ko sax ubbi téef ba muy yëg ni moom am na ñetti doom waaye ba tey jii may wax yow doom baay gisul ay doomam ci lañ ma xamal ni ma dimanche bii di bërki démb ci la génn àdduna ak lu ko mënti yóbbu dañuy nangu ni yàlla la waaye li fa tëye ay doomam ba mënuñoo génn hôpital ñàkk ci la ndax ñàkk raxut ci sax ñàkk ba sax ñàkk ci bakkanam Doom Baye mu nekk lu metti nekk loo xamante ni xol munu koo muñ ci laa leen ni suba su ma xëyee lu ma jàppoon dina ko bàyyi ñëw fekk leen hôpital bi ma demee hôpital fekk fa mbokki xale bu jigéen bi ñu daal di may dalal waxtaan ak man ma ne leen yàlla baax na ni ñu nekkee ci hôpital bi di lijjanti ay mbirum kayit Doom Baye ci la jëkkëru xale bi daal ñëw ñu toog waxtaan mu xamal ma ay kàddu yu daw yaram ma yëkkati ñaar fukki junni teg ko ci loxoom ni ko nag lii lépp luy bor wala ordonnance wala lu mu mënti doon bu ngeen yeggee ci biir nangeen ko fay ba lépp mat ñu defe ko noonu ñu ànd ak ñoom ba ñëw fii ci golf waaye doom bàyyi tey jii may wax ak dëj baa ngi nii seddagul waaye ñàkk gu tumuranke gu tar man de nee naa cas bu nekk tourné nañ ko waaye cas bii mosuñoo tourné cas bu mel ni triplé nekk ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen ma fas yéene leen a jàppale nag te yàlla tax di xaar képp ku ñu ci jàppale rek ngir ñu jàppale leen te yàlla tax léegi bi may ñëw dama jokkook Fatima ñu gën ko xam ci Ndeye Fatou Diop Greensboro mu ni ma sëñ Pape yaa ngi dem ci cas waaye ñan naa yàlla sama xéwal njëkk cee dugg ak ki nga xamante ni moom mooy soxna Daba mu Serigne saaliw doom bàyyi nañ egg ci biir fii li fi xew yàlla nañu yàlla dëgëral ba ñu mën ko àggale ci jàmm. yàlla nañu yàlla dëgëral ba ñu mën koo yeggale ci jàmm di masawaat yaayu xale yi nga xam ne maamam moo yor xale yi di masaw borom këru uh, uh, borom këram mais di masawu papay xale yi tey sunu xol tey tooy na lool. lii moo lay wane rek nit ñaa ngi ci ruq-ruqaan di dund ay jafe-jafe ndaw si xale la 24 ans la am dem na ci xelam wax nan ko ni ko am nga ñetti doom waaye ci gis ki gisul doom yi Pape nañ dugg ci biir xool mais ñi ngi koy masaw waa dëkk bi yëpp tey ñaan yàlla na dee di noflaayam jërëjëf mbokk internet yu dakaar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare bu baax li ma ko waxee sànq rek ak association an taxaw ñu wérati kenn ku ne xam sama diggante ak Pape ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu yàlla bi saa boo nu gisee rek ci lu mel nii la ñuy dox di sant yàlla nag di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax yàlla limu moom la jël li nu fi nii nag daanan dem ci yeneen i cas ay triple mais tey bii def ci spécial mooy que ni buñ masaan dem ci trip wax naa ko xale yi dañuy tëdd ni yaay xale toog papay xale toog mais tey suñu boroom ñëw ak dogalam muy lu metti tey jii xale yaa ngi tëdd waaye yaay xale yi wuute na ko loolu nag dogalu suñu borom la li ñuy njëkk def mooy ñaan fa mu jëm yàlla na gën a fi mu jóge ndaw la te wax dëgg yàlla dem na ci demin metti métti nag mais xëj na ci ñun lay métti waaye méttiwul suñu borom ndax suñu borom lim moom la jël te kenn xamul kañ la ak fan la ak naka la te comme moom dem na dañ ko ñaanal yàlla yàlla jéggal koy bàkkaaram yàlla su fooyof ci koom ñëw ci biir famille bi nag ginnaaw la ci xew dégg ngeen Pape la mu def foofu ci hôpital ba duma ci sori ñëwaat damay ñëw ci nga xam ne moom mooy mag ci xale bu jigéen bi gaañu ñu waxtaan ak moom laaj ko ay kàddu leeral ci yëf yi nan la demee mais ñu ngi ci xaan ndimbal bu jóge ci yéen ñëw ci xale yi ndax xale yi ay moominu yàlla lan xamuñu dara ñoom ñi tey kenn xamu ci ndax sax sa yaay génn àdduna xamuñu lu xew te li ma mën a waat mooy kenn du ci xam yaayam dul photo kon li mu dese mooy jàppale benn doom daa métti rawatina ñetti doom mais ci ñun la métti mais méttiwul ci yàlla yàlla na dee di noflaayam yàlla na xippi àjjana soxna si maa ngi lay ñoo maa tudd. Aïssatou nga ci xale bu jigéen bi gaañu. ñoo bokk ndey ak baay rakk la. nan la fi demee. ah yëf yi metti na lool te tiis lool te metti na lool waaye sant yàlla yàlla lu mu dogal kenn ci dara yàlla fii la dundee woon fii la yamale woon ak dundam kañ ngeen ko yóbbu hôpital. mercredi lañ dem mercredi ñi pikiir ko defal ko analise ak écho ñu ne analise bi jeudi lay génn ay 11h jeudi ñu ñëwaat ñu pikiir ko calmant rek. Mhm. lu tax ñu piqué donc calmant ñàkk moyen la wala lan la. du ñàkk moyen xam naa dañoo defoon analyse bëgg a xam analyse lu muy génnee rek mm-hmm. moo taxoon ñu piqué ko pour mu calmant métti bi arrêté daal balaa suba muy xëy di ñëw. ban hôpital la loolu. Abass Ndao ginnaaw bi loolu amee euh, kañ la xale yi judd. jeudi. ci ban waxtu. jeudi 2 la dugg bloc. par césarienne la ginnaaw bi xale juddoo seen yaay ndax gimmi na ba xam ne xale judd nañ si jàmm. ah loolu moom di na ma wax dëgg xaw ma ba xam gis na leen wala gisu leen mais ñun daal saa ñu demee xool ko dina siggi xool ñu deux fois dem nañ fa muy siggi di xool. Euh, ginnaaw bi nan ngeen yëgee ni génn àdduna. non parce que dimanche bi dimanche bi moom seen ordonnance dafa tegloo dañ daan bind ordonnance ordonnance mais dimanche bi dafa tegloo torop dafa tegloo ba sama mag bu góor bi jigéen bi di woote téléphone sama yaay di ko yuuxu ne ko la naan urgence nga taxaw di yuuxu rek di wax téléphone ma ne ko lu muy lijjanti tamit ci urgence bi la jëm mais su ma bindee su ma indee dañ may joxaat ordonnance su ma indee dañ may joxaat ordonnance mais ordonnance bu mujj bi moom moom ma xool bañ ma laajee Lipton ak kii Precia bi ba muy naan Lipton bi moom ba mu koy jàllale moom laa xam ne kii fu mu toll ni pare na ba pare mhm. ordonnance moom bañ koy bind xam naa ne jeexal na ba pare dañoo bind rek nit ñi di jënd rek hôpital moom loolu moom dañ ko yàgg def. ci biir génn àdduna bi ñu gis ngeen contacter Dakar Buzz contacter association Ande Taxawu ñu wér ndax da ngeen am ay jafe-jafe ci hôpital bi waaw hôpital bi métti woon na lool moom métti woon na lool wax ku yor malade rek xam nga ne hôpital métti na ndax ordonnance day tegle tegle chaque jour ñu bindal ordonnance du doon benn du doon ñaar loo yor yor du la doy foofu bu fa yoroon deux cent cinquante mille sax du ñu doy parce que léppay jeex ndax ordonnance yi bokkuñu te dafa cher. mu jógee da ngay baagan dem orange moo ne wéef ba wéef-jiti ji bariwul ba gol tàppal la sama rakk góor bi di mujjee wax di def dimanche sax moo ma jàppale tey yan kàddu seede nga noo indi say sa rakk ji nga xam ne moo génn di ndaw neen la moom six ans hmm. tey yan kàddu yi seede ginnaaw bi la masawoo la ñu njëkk a def jàll nga mën a indi sa rakk ji nga xam ne tey dem na bàyyi ñetti xale yoo xam ne xamul bu baax xale bu yaru kenn xamul ko biiram kenn xamul ko bitéem kenn xamul ko neex kenn xamul ko naqari du wax kenn dara yaay ma ko ku sa du ko wax ma sama xarma yaay xool nga def mais moom du ñëw na la lii moo am wala lee wala aw ma lii déedéet yooyu yaay seet lu ko neex nga di ko def mais musta wax kenn dara ci jëkkëram ak dundam ak sëyam ak musta kenn dara kenn musul xam lu ko naqari musul wax kenn tamit lu ko naqari loolu xam naa ko ci moom. dem na bàyyi xale yi lan nga wax bonne volonté yi pour ñu gën a mën a bàyyi xel xale yi mu bàyyi di ay moomin te xamuñ soxli xew. waa di ñaan dimbal rek di ñaan dimbal parce que ñun ñoo ngi nii suñu loxo jotul suñu ginnaaw sama yaay day liggéey man dama doon liggéey xale yi ñëw ñu man sama liggéey du demeeti noon sama yaay tam du demeeti noonu di ñaan rek ku ñu dimbali ci xale yi ndax yi ay moom mi nag dara xale yu xamul dara di ñaan rek ku leen dimbali te yàlla tax waxuñu ñun de mais xale yi ak seen maam dafa sonn ci ñoom muy sama yaay dafa sonn ci doomam sonn ci ay sëtam du nangu kenn laal ay sëtam te kooku bu loxoom jotul ginnaam du mën a jàppale ay sëtam loolu rek laay ñaan yàlla loolu rek laay ñaan ñun dimbali ma dimbali xale seen maam day luwee amul fu mu nekk loxoom jotu ci ginnaaw day luwee di fay xam nga ne kuy luwee di fay nga yor xale yi ndaw boo fay ñu la génnee foo jëm ak amoo foo jëm moom dañuy sàpp rek ñaan ñaan dimbal ñu dimbali ñu ci xale yi rek. ñu ne bii mooy ñetteel bi seex yi muy bii mooy ñetteelu seex taawam góor la. moo ne toog ne suñu ginnaaw ñaareeli Adama ak Awa lañu mu amaat ñaari seexi góor ñi dellu matuñu ñii ñooy ñett mu doon góor ak ñaari góor benn jigéen waaw. jërëjëf mbokk yi ñuy sant rek Diaz Kaay parce que métti na nag wax dëgg yàlla métti na mais li may wax rek suñu borom lim moom la jël dem moom mënuñu lu dul ñaanal ko ndax ñaan la soxla. ñu ngi ñaan yàlla na coonaam yem ci àdduna di lancer un appel ci bonne volonté yi nañu gën a bàyyi xel xale yi gën a bàyyi xel xale yi te yàlla rek tax ndax yaakaar naa ne ku bëgg a def lu baax defukaay lu baax baa ngi nii Diaz metti na kaa bi ñu ngi lay masaw di la jaal li nu bokk tey kaa bi wax nga du ma ñëw ci neen nga ko yëgee mais bi nga ba hôpital ba gis situation bi en tant que jullit sax laa wax lan nga yëg ci koo xam ne tey jii dem na génn àdduna bàyyi ñett doom yoo xam ne tey jii ay moom leen xamuñu dara. waaw doom bàyyi wax dëgg yàlla de ku ni mettiwul rek daf laa dalul ku ni mettiwul daf laa mësta dal yàgg naa koy wax dama yàgg a wax ni ñi ko bëgg te mënuñu koo am bari na. waaye bis bu yàlla sàkk rek sunu borom di nu gën a woon boppam di ko may ñoo xamante ni sax amaan na duñ leen mën a sax yor tey soxna si nga xamante ni moom moo génn àdduna tey moom moo ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci àdduna tey doomam yi nga xamante ni bi mu leen ëmbee guddi gu njëkk mu sentir ni moom nekk na jigéen ju wérul keroog la tàmbalee am coono. muy dox di am coono ëmb boobu nga xamante ni moom la ëmb tere ko di dem ci ay xaritam ëmb bi tere ko muy def ay activité am ëmb bi tere ko lu baree baree bari te saa bu nit ñi xëyee ñu ngi ñaan yal nañu yàlla may njaboot mayor ñetti soxna yàlla dénkuma benn doom tey ma gis koo xamante ni tey sunu borom dénk na ko ñetti doom waaye yàlla jël ko moom mi nga xamante ni moom moo leen jur doom baay mu nekk lu metti nekk lu tar musuma toog ci vidéo am sañ-sañu wax ni jël naa kii en charge wala jël naa kee en charge mësuma ko wax waaye doom baay xale yi jël naa leen en charge te yàlla rek tax seen lépp man la war seen lépp. tey bi nga jógee ci hôpital bi. Euh, gis situation bi nga am loo fa dund loo xam ne ku ne méttiwul daa dal sa kaw euh, lan nga dund ci bi loo xam ne tey jii parce que ñàkk dafa metti ñàkk metti na mais li ñuy def mooy ñaan dimbal lan nga wax bonne volonté ñu mën laa dimbali ci xale yi tey ñu mën a gérer seen avenir ndax ñàkk na loo xam ne mënatuñ koo am ci àdduna. ndeysaan li may wax bonne volonté rek mooy lama leen daan wax dama leen daan wax naan leen li ma leen daan wax rek laa leen di faral di wax mooy ndimbal ak yërmande rek mën a dimbali doomu aadama bàq bi tooy na dombaay ku ji di nga góob musuma koo wax ni jël naa leen en charge te wallaahi su ma génnee kër gi fii dinaa dem ba kër ga samay soxna dinaa leen jox xaalis ñu utal leen ay valise kenn ku nekk sentir naa sax tey ni man man maa ngi soog a am tout tànk yëg naa ko ci sama biir xol waaye may woo képp koo xamante ni doomu aadama nga képp koo xamante ni def katu lu baax nga képp koo xamante ni jaamu yàlla rek moom moo la ñor maa ngi leen di woo ngeen ngeen jàppale ma ci xale yi te yàlla rek tax seen magu yaay ji toogoon fii léegi doom baay wax na ko nee na ñun soxlawuñ sax ku ñu jàppale waaye liñ bëgg rek mooy ku ñu jàppale ci xale yi. ma wax leen ni leen fomp leen seeni rankoñ Pape Niang dina leen jàppale ci xale yi ñaanatuma yàlla mukk kenn ci ñoom di manqué couche wala meew wala lu mu mënti doon bu jaree sax mu ut ñetti nit ñoo xamante ni ñoo ciy jàppale seen maam ñu koy tey di leen taxawu ma di leen ñaan bu leen leen mën a mës a joxe orphelinat bu leen leen mës a dénkaane li tax yàlla bind leen jël seen wayjur yéen la sunu borom nam ma liggéeyloo ci njaboot gi te leen leen dinaa leen jàppale te yàlla rek tax leen jàppale te yàlla rek tax te gëm naa ni ñi may seetaan duñ ma ci bàyyi ma wéet dinañ ma ci jàppale doom bàyyi amatuma lenn lu ma wax xale yi maa ngi sàkku ci maa ngi sàkku ci rek seen waajur bii nga xamante ne mooy seen maam doom baay bul jooy mu téyal ma leen te yàlla tax dama leen téyal te yàlla rek tax lii de xam naa ni bu manqué quatre cent mille tamit xam naa ni dix mille moo ci manqué wala vingt mille doom baay joxal ma ko seen maam te yàlla rek tax. jërëjëf mbokk yi ñu ngi sant bu baax te ñaan yàlla gën noo jàppale. xale yi nag lu ci waay def suñu borom nga lebal te ku lebal yàlla yàlla fay la man waxuma sax xale yi mais seen yaay ji dem ak ni doom mel ak ni aw mel nga daj ci lu ne te ba tey gisoo say doom loolu mooy limet metti sant yàlla te xam ne yàlla mooy koy dogal te li may wax ne xale yi kenn xamul lu doon ëllëg ñu ngi ñaan yàlla nañ dund tabarkeel waaye may ñaan ci képp kuy bàyyi xel Dakar Buzz di bàyyi xel association taxaw ñu wéradi na nga bàyyi xel ci xale yi euh, wax naa ko saa su ne waxaat naa ko ku bëgg a jaamu yàlla bërëbu jaamukaay yàlla yi bari na ñii defuñu lu tax yàlla jël seen wéyjur bàyyi leen fi ñoom xamuñu dara wax naa ko sànq ku ci màgg sax bokk ko nee sa yaay du ko xam lu dul photo yàlla mooy dogalee noonu mais di gën a lancer un appel ci hôpital yi yàlla mooy rey mais nan gën a deesal yërmande ci malade di fay ñëw ndax léeg-léeg malade dund loo xam ne ci hôpital lu ci bari manque de mooy da koy yóbbee nañ gën a yeesal yërmande ci hôpital yi social am na ci hôpital yi de waaye bari na ci hôpital yoo xam ne bu fekkee yoroo xaalis négligence bi dafay bari trop nan la war a taxawoo day des te àdduna doxewul noonu. kon nanu gën a yeesal yërmande di ñaan nag képp kuy bàyyi xel Dakar Buzz Social rek nga fexe sa dimbal dikk xale yi te xam ne ku leen lebal yàlla nga lebal te ku lebal yàlla yàlla fay la kon jox ko li nga xam ne moom la ko Pape ñaa jox lu jiitu cent mille yi ko ñaa joxoon ci hôpital ba kon bu fekk see ak quatre cent mille yi day daal nekk cinq cent mille teel a rek tax ndax booy defal bu baax yaa cay jiitu seen yaay nag sunu borom néew na dundam fii lay yem yàlla na coonoom yem ci àdduna waaye bu nu bàyyi xale yi ndax seen yaay tey fa mu tëdd lay tax mu tàlli lay tax xolam sedd mooy doomam yi nekk ci condition yu baax te képp ku jëf ci doom yi lu baax jàppal ni jaamu nga yàlla yàlla nañ ci yàlla defal ndam ndax kaay wax naa ko tourné nañ ko mais ñu daan tourné seen yaay day toog seen papa toog bii nag wute am na yàlla rek moo dul wuute nag mais nañ gën a bàyyi xel xale yi nga xam ne seen bis tudd sox ñëwagul papa xale kañ lañ judd kon bis bi leen war a tuddal ñëwagul war na leen rendil gàtt nan defoon nga xam ne mooy Sadio ndax doom jullit bu juddoo dañ koy tuural deret te loolu lépp xam nga di newu fi ñu yaakaar ko ci yéen nag comme ni ñu koy defee mais kenn ku ne ñu tàbbal ñaqam ngir mu barkeel ngir xale yi mën a nekk ci condition bi baax ñu ngi ñaan nag képp ku di seetaan rek maa ngi di bàyyi xel fexeel sa ñaq dugg ci xale yi te xam naa ne bis bu ngeen gisee vidéo bi di ngeen ci participer ndax lu baax la ne yéen ci vidéo bi kon ma jox ko jaas mi trois cent quatre vingt mille plus cent mille yu dugg mi quatre cent quatre vingt mille ñuy ñaan mu barkeel su barkeelee xale yi lu nu bëgg faj nañ ko faj ndax wax naa ko léegi BSPS bi kenn ku ne dina la defal waaye bu yëf yi ba kenn ku ne dem lay war teef ci xale yi muy kuus ak meew ak ji topp seen wàllu wér-gu-yaram day des te wéetugul ci kenn ku dul wéejuróom bu góor ak maamu xale yi te xam naa ne la ciy ëpp ci coono kii koy yëg. ndax jigéen moo mën a saytu xale kon nañ gën a bàyyi xel ci ki nga xam ne moo yor xale yi li jëm ci dëkkuwaay bi dégg ngeen ko lii moo lay wan ne senegal métti na Sénégal métti na toujours moo ko bu jotee nga teg sa palaat sa kaw taabal añ am jàppal ne am na ko añul su guddi jotee nga tëdd jàppal ne am na ko mu fu mu tëdd su guddi jotee nga nelaw ba yandoor jàppal ne am na ko biddan ci ku mënta nelaw ndax aw métti man bàyyi xel te xam ne yàlla mayewul day te lu mu la jox ëllëg da koy rocc te lu la jox ci nit la ko jëlee dajal alal ju bari nag ci miraas lay mucc nanu miraas suñu bopp jëmale ci yow baax balaa ñu noo miraas caat lan ngay tàggatoo. sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek laay tàggatoo sant maa ngi ñaanal seen waajur yal na yàlla gërëm ak delloom yal na ko yàlla jéggal ay rëcc yal na ko yàlla xare aljanna njaboot gi mu fi bàyyi yal nañ doon yal nañ jariñ seeni ay seeni maam ak seeni mag ak mboolem koo xamante ne moo ngi ci kër gi incha allahu rabbul alamin ni ma ko waxee léegi ba ma juddoo ba léegi musuma jël en charge sax béy buy taxawaalu waaye ñii jël naa leen en charge te yàlla rek tax suba ci ngoon samay soxna dinañ fi ñëw dinañ leen indil kenn ku nekk valise suba ci ngoon dinaa yónni sama rakk jële di bàyyi sëwru dina dem jëndal leen ñetti xar ndax ñi waruñoo bokk ci ñi ñuy tufli seen nopp rek mu jàll dañ leen a war a tudd fañ leen war a tuddee te yàlla rek tax fa may jërëjëf Sowru Ka parce que mënta ñàkk ndax kaa bu ne ànd nañ ko mën a yow Pape muy Sadio muy Sam Yabal kaa ne mais bii dafa nekk beneen kaa boo xam ne ci biir kaa yi situation bi nga gis rek ci senegal nit ñi di ko dund te ba tey nit ñi yeewoon ni am na ñoo xam ne ñu ngi ci ruqurqaan dem ay jafe-jafe ba tey mën na koo gëm tey ban jàngat wallaahi wallaahi maa ngi tàmbali rek di massaw ki nga xam ne mooy borom këru soxna si di massaw woy juru soxna si waaye di wax ni rek bis bu ñu yewoo rek yàlla suñu borom mu ngi ñuy jàngalaat mi ngi ñuy wanaat boppam sànq rek bi ñu duggee ci oto bi xale yi nekk ci sama oto dafa am lu bari lu sama xel dem maa ngi koy wax sax ñi ma nekkal coote wax leen ne leen man tey léegi maam am lii dal xale yi dal na ma sama wayjur bu jigéen làqu na waaye ndegam man mii mag ba tey maa mënta fàtte sama wayjur bu jigéen mastama xale yi nga xam ne teguñu bët seen wayjur bu jigéen xale Fadel tey ñii nit mën na leen defal àdduna ak li ci biiram waaye kenn mënta tax ñu gisaat seen jur kon ñoom lépp lu leen waaye mën di defal duñ mës a dund ndey ci doom loolu laa ñeewantalee xale yi ne man mi nga xam ne mag laa rajay Cheikh Ahmadou Touba jërëjëf mbokk yi kàddu cant rek seen jërëjëf mbokk yi ñu ngi toog ak ndijaayu xale yi di ndijaay xale yi sax laay wax ndax ndijaayu ki gaañu di ko masaw di la jaraat li nu bokk tey metti na te lu metti nag ab jullit lay dal rawatina ab jaam ñu ngi lay masaw di bokk yow tiis bi ak naqar bi waaye tey bi situation bi amee euh, association Ande Taxawu ñu Wéradi di ñëw fi ànd ak Dakar Buzz Social jàppale xale yi fas yéene topp dund xale yi ci lu mën seen kéemtalaay kàttan ngir xale yi bañ a yëg benn souffrance tey lii fi joxe ci xéewal lan nga fi yëg ginnaaw bi la ma sowoo ba pare. waaw alhamdulilahi rabil euh, sant yàlla suñu borom subhanahu wa moom mi nga xamante ni muy bégal doomi aadama ca na mu ko soobee waaye mooy tegee tiis doomi aadama ca na mu ko su la jógee su la joxee nga sant ko waaye bu la xañee nga sant ko xëy na eh, ñàkk sa mbokk métti na rawat na mu bàyyi fi ay tuut tànk lu mat ñetti nit métti na lool waaye métti bi yëpp ñu ci sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di delloo suñu bopp ci yàlla ba nga xamante ni eh, ñu ngi daal ay jaamu yàlla lañ te jaamu yàlla nag neexut ndax yàlla li métti rek jaamam la koy teg ginnaaw daf ñu fi indi ngir. ñu jaamu ko ngir ñu topp ko ngir ñi dégg ay ndigalam mu def ni lii tey dañ ko si sant waaye mu gën ñu yokk suñu pas-pas ci moom waaye mu gën ñoo yokk ñu war a dellu ci yàlla yéen nag ah xanaa di leen gërëm rek bàyyi leen ak yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñun dañuy jàpp ni rek ay ndawu yàlla ngeen yu ñëw ci jàmm yi parce que lu tax xam nga nit bu xëyee rek dina ne rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axira xasana al xasana fi dunia li da bokk tax doomi aadama bu fekkente ne dafa nar a jaaxle yàlla indil ko koo xamante ne moo war a génnee jaaxleem kooku sant yàlla suñu borom la sànq wax naa ko nee naa nit donte bu amee doole sax day soxla na ko ko dimbali nit bu ñàkkee doole soxla ko ko dimbali nit bu tox tolloo ci diggante soxla na ko ko dimbali kon yéen bu fekkente ne fekk jiwuñu leen lu mooy yéen da ko digg rek taal seen i oto ñoo fi ñun dañuy ñaan yàlla rek yàlla guddal seen i fan wéral seen i cër la ngeen yi mën yàlla ko yàlla yokku te yal na yàlla yokk seen sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale yi dañ leen ñaanal yàlla def leen magul islam ah, li ñu gane si ci àdduna yàlla bu ko yàlla bu ko famille bi rëccu waaye yàlla bu ko lislaam rëccu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen nag ñu ngi ñaan képp koo xamante ni ah dégg nga vidéo bi wala nga gis ko ñu ñaanal leen yàlla yokk seen dëgëraay ndax ngeen bañ a yokkat ci dara ndax jaam yàlla neexul soo ko dégmalee rek seytaane dégmal la wala ay nit dëggal la wala am na lu ni sa xol loo xamante ni tey jii boo moytul mun naa yàq sa jaamu yàlla kon yal na yàlla jàppale yal na yàlla suturaal gërëm nañ leen sant nañ leen ak képp koo xamante ni dégg na ko gërëm ak sant neel na la waaye ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilahi rabil alamin di sàkku ci ñaan nag képp ku ko dégg wala képp ku ko ku ko yëg ñu ñaanal xale yi yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér yàlla may leen sutura seen yaay ji nga xamante ne ñàkk nañ ko nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla xare àjjana te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar ndax ci ni mu demee ci ni mu demee ci lislaam doomu jullit la te it ku nanguloon waajuróom bu jigéen la daan na ko dimbali daan na ko suturaal nekkoon na nit koo xamante ne daawul woon jàmbat dara loo xam sax lu ko métti loo xam lan mooy problème addunaam mu ngi noppi rek loo wax mu mu teg ci ree waa keroog ni ñu ko yóbbee hôpital ba yàlla dogal li mu dagal ah, alhamdulilahi rabbil jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah rabil alamin li Pape wax rek xale yi daan leen taxaw daan leen defal li ñuy defal doomu jullit daan leen jëndal ay gàtt tuural leen deret te duñ ci am daan leen topp ci lu nu mën ci lu baax ñu def ko ci. di sant yàlla nag ci bon volonté yi nga xam ne bu liggéey bi yembee ba yegg si fi lu ci bari yéen la li may wax rek bàq bi tooy na ku ji di nga góob mais nañ gën a bàyyi xel ñi néew doole te nekk ci yàlla may woo dara dafay dénkaane rek. te lu mu la jox ci nit la ko jëlee te bis dana ñëw mu jëlaat ko kon li yàlla jox jaamu yàlla ci xéewal nan ci def lu baax dimbali ci nit ñi te xam ne àdduna dara continué wul ki di ñaanalaat seen wéjur wi dem yàlla na coonaam ci àdduna aw mat métti na nga wasin ko li sa yitte ak sa yéene mooy nga gis say doom waaye ba tey tegoo leen bët yàlla moo dogalee noonu ñu ngi ñaan yàlla na dee di di ñaan képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel Dakar Buzz rek lii na nga ko jël def ko sa pàggu téef def ko sa bopp te xam ne ku jëf yàlla moo lay fay jërëjëf bokk yi ba tey ñu ngi toog ki nga mooy papa yi triplé yi di papa xale yi nga xam ne seen wéjur génn àdduna donc ñaari baat waaye ku baax ñu ngi lay masaw di la jàlli nu bokk ndax ñàkk soxna metti na mais suñu borom mooy dogal te bu ko sooboon ji la yóbbu xale yi ñun lay yóbbu duñ bàyyi fi bàyyi fi la yóbbu lay yóbbu waaye yàlla mooy dogale noonu ñu ngi lay masawu encore une fois topp nañu xam tudd na la. waaw tudd Ngone Sow la Ngone Sow Ngone. Ngone Sow xale. Euh, nan nga euh, dundee xale yi ak seen yaay ci hôpital ba. ah affaire yi moom sant yàlla rek affaire moom sonn nañ ci ay mbokkam daw nañ ci ba sonn samay mbokk tamit noonu daw nañ ci ba sonn mais yàlla moom dafa doon buur boo xamante ne kenn du moom. am na doom dem naa fa seet su ko man tay laay door a gis doom yi nii boobu ba léegi dem naa ñaari yoon yoo xamante ni bàyyi ma ma dugg waaw mais dimanche bi daal la yàlla def lu gën daal gars daal sonn nañ ci mbokk mi macha allah sonn nañ ci samay mbokk tamit c'est la même chose nañ ko ko war a taxawoo jàppale nañ ko denc nañ ko. yan ay saa ngay yan ay saa ngay yëg ni soxna waaw man de ba may génn àdduna mu ngi tombé ak dimanche ma demoon fa médecin woo ma ne dañ maa dem fa ba fa demee. xool ko ma yaakaar ne day génn fekk ne njëkkoon nañ ma woo ñu ne ma ay yére noonu ba ma am lu ma taqale yóbbante ko pour ñu jënd si yére ba ma jàpp ne dimanche bi day génn dimanche bi ndaxale ba ma demee su boobu ndax yàlla def lu gën ba ma demee noonu xaar na ndaxate yaay boobu waati la moom wóor na Sëriñ Tuubaa mu ñëw ne ma fépp mu musul nangu kenn xamal ma sama ñàq billaahi da daan dem di liggéey di fóoti su ma amul day dem fóoti su ma ko joxee bu amee mu def lu ma ko jox mu suma ma jox lu mu yàq woon Serigne Touba ñett téeméer sax su ko ko joxee barki yàlla day def ci moom ñeenti fan ndax nu muy économiser xaalis moom kay ñu ngi ñaan yàlla suuf oyof ci kawam te man gëm naa ni ma nga ci àdduna yi kawe ndax ku seex seex seexaat ñetti seex ah te yaayam tamit du ngërëmu waajur làqu na ko daan jàppale yaayam ba ni mu ëmbee sax. du bàyyi yaayam ci liggéey ci dara da koy jàppale waaw. tey yan jafe-jafe nga am côté financièrement ci hôpital bi ndax gis woon xale yi di laaj xaalis. waaw côté financement moom mun naa ne boor bépp la seen côté la suñu côté la. magam yi daw nañ ba daanu am nañu ay bor maa ngi sama mag boo xamante tamit ñooy ay bor sama jabaru mag tamit ñooy ay bor ñoom ñii tamit ñooy ay bor dañoo daw fu nekk dugg nañ fa di liggéeyanti te man sama liggéey demee noonu élevage laa doon def sa sama liggéey dafa taxaw. daanaka jàpp ma si mun naa ne wax jàpp ma si dara ay takk bopp laay def su ma takkee tey bopp mun naa toogaat trois semaines am na du ma takk bopp rek si laay takk sama affaire tam gis ne xale yi benn instant dañ na leen woon ba ngeen fa amoon bor hôpital bi. waaw jot nañ fa amoon bor mais yàlla def nañu fay ko ba ñu eggee tak sax waa ji yëkkati na pour les cent jox ma ñu jënd si quelques ordonnances si desoon foofu fay ci wéccet bi après ñu ñëw jox ma cent lan ngay wax bonne volonté yi su mun laa gën a jàppale ci xale yi ndax seen yaay dem na te yaay wéyjuru xale yi yaay priorité te coono bépp sa kaw lay wàcc wax bonne volonté ñu gën laa dimbali. jàppale ah man de bëgg naa moom ci yàlla xewaleel mu mën ci jàpp mu jàpp ci te yàlla rek a tax jàppale xale yi waaw xeebuñu si dara ndax ku dem ba tey nekkook sa yaay man tamit noonu nekkuma ak yaay nekkuma ak papa. waaw sama papa dafa teel a laax sama côté sama yaay tamit dafa teel laax sama côté mais maa samay mag tamit te ñu ngi may jàppale te bañaluñ ma dara waaw. nan nga gisee liggéeyu Dakar Buzz ak association Ànd Taxawu Ñu di nga xam ne saa su nit jaaxlee ñoo taxaw assisté jàppale la. Ah, di ñaan yàlla fay leen seen xol rek ndax def lu baax moom yombul yombul wala Serigne Touba liggéeyal yàlla moom yombul te rawatina liggéey dañ ne liggéeyal yàlla dafa bëri ci ay façon lu naan jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla gis naa ne jërëjëf bokk internet yi Dakar Buzz loolu mooy kàddu yi papa xale yi yëkkati di ñaanat encore une fois bonne volonté rek lu ci waay mën ci lu baax nga def ko ci rawatina diaspora bi di wax ni fàllu su ma rek nga te ku bëri yërmande gi bi nga yëgee kaa bi rek eh, da ngaa tur xéewal yow ak sa frère Moustapha Niang ak seen mag Coro ñu ngi ñaan yàlla taxaw leen te yàlla jàmmal leen di ñaan lu baax li ngeen di def ngeen gën cee bàyyi xel xale yi te xam ne yàlla moo leen di fay ci micro bi mi ngeen tàmm di gis. cadre bi Amar Kala Thiandal ak Aliou